liggéeyub sëriñ bi digg bi ñoom ñu fekk ne ne nekk ci liggéey ñu ak internet ñi xam ñooy sara à seen seen Procat TV ak Touba Monde TV ñoo ngi leen nuyoo fii ci Touba Toscana ci fii ci Italie di leen nuyoo fii ci bisu xasida yi nga xam ni moom la ñu amal fii muy dix-neuvième édition mu war a am ëllëg 2 novembre 2024 comme ni ngeen ko xamee muy bis boo xam ne macha allah bis bu yaatu la bis bu rëy rëy la ñu koy dundal comme ni ko sëñ bu bëggee muy ci alxuraanu karim ak xasida yi ak tuddu baat laa ilaaha illallaah waaye nag bis bi day événement boo xam ne événement bu yaatoo yaatu la. boo xam ne à travers le monde fu ne la nit di jóge ba tax na organisation bi daanaka day xaw a mel ni ni ñu organiser fii màggal moo tax tey ñi ñu ànd ak ñi nga xam ni ñoom ñoo yor liggéey boobu muy liggéey xasida yi comme neen ko gisee sama feggu ndeyjoor ànd ceeg Baye Sam Diop ak fii sama wet gu càmmoñ ànd ceeg Baye Mbacke Mbodj ñu fas yéene waxtaan ak ñoom ci nan lañ doxalee bis bi ndax gis nañ ni kat bis bi bis bu yaatoo yaato yaatu la macha allah. nit yi fiy daje moom kéemaan la suba bu soobee yàlla da ngeen ko gis ci image yi waaye ñi fas ne ànd ak Baye Mbacke mbóoj mi nga xam ne mooy secrétariat liggéey bi laaj ko organisation bi nan la demee ndax 19e édition bii kat gis nañu nit ñi fas nañoo yéene bari lool lool lool ba nga xam ni dana jéggi dayoo te gis nañu saal bi macha allah comme niñ ko waajee kon ñu fas ne nuy jox ko kàddu gi Baye Mbacke Mbodj mu nuyonteeg mbokk taalibe yi. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki julliti mbokki taalibe yi ginnaaw biñ ñu leen nuyoo ñu ngi leen di ziyaare di leen balwaax tey bal ñëpp àq tey jiital ci ziyaar bi ak nuyoo yi xalifatul imaam Serigne Mountakha Mbacké di ñaan suñ boroom yàggal ko ci suñ kanam te defal ko ak wér mu ànd ko taalibe Serigne Touba yëpp. sëriñ bi li nga laaj tey dafa yomb ci ñun ndax liggéey bi tey ci ni nga ko waxee rek mooy dix-neuvième édition yemook 2 novembre 2024 liggéey bi nag mu ngi sosu ci mille mille 2004 ak léegi vingt 24 ans la wante booy xool Covid bi fi jaar ci diggante bi moo waral at yi nga xam ne nii dafa yemoo ak Covid bi ñu def ko visuel nga xam ne woote wuñ ko jataay comme nii ñu ko wootee suba incha allah dañ ko woote ci internet bi dundal ko niñ ko daan dundale kon loolu moo waral dix-neuvième édition bi yemoo ak deux mille vingt-quatre wante ci sa biir laaj liggéey bi mi ngi sosu en deux mille quatre 2004 boobu ñu ngi ko defee woon ca Rimini 2005 ñu dem Rome 2006 ñu ñëw Firenze ci Toscana buñ ko toppee noonu lañ ko toppee Toscana nag tey bii ci Livorno mooy ñaareelu yoon ñu ñëw ko ci Livorno ndax woote nañ ko fi lu ko jiitu 2024 woote nañ ko Firenze 2006 woote nañ ko Prato tamit di 2015. kon bisu suba bi day yemoog ne Touba Toscana da ciy am ñeenti guddi yoo xam ne nii woote nañ ko fii nin ko daan wootee rek nag lañ ko woote muy liggéeyu sëriñ Touba boo xamante ne nii dañu nekkoon di làmbatu ba sëriñ Touba fekk ñu ci ndaxte booy xool bisu xasida ci at yi ñu génn ki fi toogal sëriñ Touba muy Serigne Mountakha Mbacké moom daf koy woote weer weeru koor wi yëpp kon. loolu rek buñ ci sukkandikoo dafay gën a tax ñu gën a mën a wagaraat liggéey bi te xam ne liggéeyu Serigne niñ ko tàmbalee woon tamit xëy na sëriñ saam dana ci ñëw tàmbalee ci sëriñ bi yem ci Serigne bi la wante looy def jëmale ko ci sëriñ bi bu barkeelee rek daldi di lay tiim ba war moo waral gox yépp doomu aadama yi ñu ngi fay bàyyi ko ci réew yi ñu wër. ba ca Sénégal gi nga xamante ne nii sëriñ Muntaxa mi nga xam ne mooy xalif général de Mourides di boole ñu ak sëriñ maam no ñu gën koo xam ci koso muy bàyyi ko Sénégal di ko taxawu si bu dikkee tamit njabootu sëriñ Touba gi nga xam ne nii ñoom lañ nekkal ci réew mi yëpp dañuy ñëw ànd ko ak ñun dundal ko rawatina nag fii nga xam ne nii mooy Touba Toscana nga xam ne ci liggéey bi biñ ko wootee 2006. ginnaaw ba ñu ci juboo jigóoy ci la ñu amee tawféex tawféex googu ci la Touba Toscana defee fédération muy quinze daayira yoo xamante ne nii benn bu nekk bokkul sa moroom dëkk bu mu nekk kenn ku nekk am nag sa président wante fédération Touba Toscana benn président moo yilif moo jiite daayira yépp kon loolu muy tawféex goo xamante ne nii loolu la Touba Toscana di dund ba tax na luñ fi woote waxuñu kuréel yi mais dañ koy ànd ak njabootuk Serigne Touba gi nekk ci région bi yëpp te Touba Toscana euh, yiir kuréel yi kuréel yi niñ ko doon waxee rek kuréel yi dañoo bokk ci biir daayira yi Serigne yi kon loolu moo waral Touba Toscana seen woote saa su ne muy am euh, ak jàppandel ci àndandoo gi nga xam ne nii moom la sëriñ bi bëgg te ñun ñii tamit ci la woote ci lañuy ñuy xëy ci la gont ci la ñuy digal tamit tout tànk yi ci kenn ku nekk ci ñu ci ñoom dëkk ba nga xam ne nii fala la suñ borom baaxee nga nekk fa bala ngay def lenn ci biti na nga ànd ak ñoom ci liggéey Serigne Touba bi nga xam ne nii moo nekk ci dëkk ba loolu dana gën di jàppindal suñu nekk ak ñoom ndax danoo woote bennoo te ki fi toogal Serigne Touba dafa woote bennoo kon bennoo googu ci ñun la war a tàmbalee ci ñun ñoo ko war a jëkke nekk ci di ci dox guddi ak bëccëg ba liggéey Serigne tubaab yi lépp doon benn kon loolu rek la ñuy tàmbalee ci foofu ba nga indiwaat yeneen laaj yoo xam ne nii dafa màcc ci li nga xam ne nii moom la ñuy saytu ci liggéey bi. xam naa ni Baye mbàkkee balaa ñuy dem ci Baye Sam Diop mi nga xam moo jiite liggéey bi ndax gis nañ ni ñi nga xam ne ñoo organisé bisu xasida yi du benn kuréel mel na ni Italie yëpp la dajale te xëy na loolu Italie dëkk bu rëy rëy rëy la xëy na daje réunion yeeg ak ni ñuy waajee bis xëy na ak fi nga xam nit ñi fi ñu dëkkee xaw naa sore loolu ban liggéey ngeen ci def ba yëf yi mucc ay nii. liggéey biñ ci def liggéey bi mbiri sëriñ Touba maanaam sëriñ bee ñu gàttandu ku sëriñ bi gàttandu nag bala ngay toqi lépp mën a jàppandi na xam dëkk yi sori yoo na parce que ci biir région yi rek dañu sori yoo ndaxte sëriñ Sam mii nga xam ne nii moo toog ci sa wetu ndeyjoor sama jiite liggéey bii. fa mu dëkk ak man fi ma dëkk rek 400 nangam kilomètres la wante tamit ànd te yàlla tax ànd te sëriñ bi tax moo waral liggéey bi àgg fii mu àgg parce que dañuy wax li ñuy def buñ gis suñu bopp nañ ci gis sëriñ bi kese boo wootee ci sëriñ bi tax nag képp koo xamante ne nii euh, sëriñ bi dafa nekk ci sa xol dana wuy si kon ci loolu rek ci la sukkandiku di ci woote ba tax na biir réew mi fépp la ñuy woote ay réunion réunion yi tamit dañuy dagg si ñuy yitte teel a jóg dem te bu ñu àggee ñëpp bu ñuy tas duñ ko bëgg sax duñ ko bëgg ndax cofeel gi nga xam ne nii kenn ku nekk moom nga dencal sa morom cofeel gi nga xam ne nii kenn ku nekk moom nga dencal sa morom moo tax bu ñu wootee réunion kenn ku nekk day sawar a dem rawatina nag di ko waajale bis bi moo tax bis bi bu agsee nga gis mbooloo yu jógee fu nekk ci biir réew mi ak ci réew yi ñu wër ba ca senegal kon loolu caafonte gi ak euh, nemmikonte gi nekk ci suñu biir di ko di ko dund di ko dund xasida yi loolu li wolof di wax euh, li fu li mu saf ki ko macc rek ko xam loolu moo ñu moo ñu ci bàyyi. jërëjëf Baye Mbacke Mbodj ci kàddu yu am solo yooyu xam naa ni foofu la ñuy jaaree nuyu Baye Sam Diop mi nga xam ni moo jiite liggéey bi. te ku ko gis rek sa xel day dem ci xasida Sëñ Tuubaa yi loolu nag li ko ko may bokk na ci bis bi Baye Sam ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay nuyu Baye Sam. bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu fu waaye mën a nekk ci àddina te ci jiital sëriñ Mouhamadou Mountakha di ko ñaanal tawfeexi sëriñ bi. sunu boroom yàggal ko fi wéral ko ak njabootu maam borom Tuubaa gépp ak njabootu lislaam gépp di nuyu tamit mbokk yi nga xam ni ñoo waral jataay bi mooy njaboot gan mooy njabootu xasida yi te sëriñ Amsatu Mbàkke jiite ñëpp di ko ñaanal yàgg fi lool ak wér di nuyu tamit sëriñ maam Thierno mi nga xam ni moom na fi wajuram wa di yebal mu fi ñëw di ko taxawee si te mate ko ak saari xarit xaalis mi mu àndal ak ñi ñëpp rek délégation bi yëpp ak nag mboolem suñu jëwriñ yi nga xam ni di ñëwatu Serigne Touba gi nga xam ne ñoo bokk nekk ci réew mii te ñu jiite ñu fi liggéey bi te saabu bis bu jotee ñoom ñëpp kenn ku ne bàyyi la nga jàppoon ñëw ñu ànd ko ba liggéey bi mat mu mel ne nag liggéey bi moom. liggéeyu sëriñ bi la mën naa ne ñun li ñu ci war rek mooy woote rek mooñ ci war la des lépp sëriñ bi moo koy defal boppam woote gi ñu ko woote itam yàlla yi kese rek lañ ci wut jaare ko ci sëriñ Touba di ci jéemit lu ñu man di ko santaane itam te ñi nu koy ñi nu koy sant mu mel ni ñoom sax ñoo nu gën a bëgg njub googu ak def ngir yàlla googu seq kook tamit comme ni ma waxee woon suñuy kilifa waaye seq kook yoo xam tamit ñun ñoo leen def ndax suñuy doom lañu suñuy rak suñuy jarbaat waaye mu mel ne seq gi ko séq ñoom am nañ ci bëgg goo xam ne ak cawarte goo xam ni eh, dem nañ ñun ba nga xam ni ñi nga xam ne dañoo féete mag daanaka ni defatuñ ci dara loolu xëy na bu waxtaan jotee rek. ñu woote ñu daje waxtaan waaye lépp loo xam ne lu ñuy yëkkati la lu ñuy teg lu ñuy eh, jëf walla loo xam ne si coono lay laaj ëslëf ñoom ñooy def lépp waaw ñun weesu ñu rek toog di leen surwaye ak di leen digal bu ñu amee loo xam ne gis nañ ni waruñu faa jaar ñu xamal leen fii du yoon fii mooy yoon wi ba ñoom ñëpp nangu nañ ko macha allah ñu ki sant yàlla bu baax a baax. xam naa ni Baye Sam foofu laay ñëw ndax boo xoolee liggéey bi daanaka léegi daanaka tout tànk yeeg ñoo ko yor. Eh, yow mi nga xam ni ñu ngi ñaan suñu borom gën laa yàggal ci liggéey bi. waaye muy liggéey bi nga xam ni bokk nga ci ñu ko sos. te boo xoolee léegi bi su xasee li fiy daje ci mbooloo tubaar kàll la mhm. eh, xam naa li may laaj mooy ban yëg-yëg nga ci am loolu. waaw yëg-yëg de mooy eh, yëg sëriñ Tuubaa rek lañ ci def ndax xam nañ ni lépp moom la li ma waxoon ci njaal bee nee duñ ci doonuñ ci dara loolu woote sëriñ Tuubaa nag dafa yilif ñëpp sunu borom it dimbali ko dimbal moo xam ne néewaana mu dimbalee ko doomu aadama mooy lan ku ko dégg gis ko sopp ko boo ko soppee di nga xañtu mbooram te boo xañtoo mbooram danga ci gis loo xam ni dootoo ñee kenn kon loolu mooy yëg-yëg bi nga xam ne moom lañ ci am te jàpp naa ne yëg-yëg bi ñu ci am ñun moo ngi leen ko séqal ñëpp ñoo ci bokk yëg-yëg ba ñi nga xam ne bu ñu wootee ñu wuy si sax ñoo ci bokk bokk benn gis-gis ñoo ci bokk benn yëg-yëg Sëriñ Tuubaa kese lañ ci yëg ndax damay wax jamono ju nekk nii kenn ku ne bànqaas bañ la jox yaa ngi ko séqal na ci góor góorlu te bu ca xool sa bopp ndax boo ca xoolee sa bopp gis gante gis sa bopp du la amal njariñ kenn rek lañ ci war a xool muy Serigne Touba mi ñuy liggéeyal moom rek nga xam ne bu bu moom bu gisee ak gisam moom faw xanaa gisug ñépp te gisam rek moo ci am solo kon yëg-yëg gi mooy sant ci sunu borom bu baax a baax ndax ku ne xam na ni yombut ndax sëñ Mbàkke mooy li wax nii fii ñuy defee bis bi ak fu ma dëkk man. ñett téeméeri kilomètres yi teg na te am na ñoo xam ñoo ma gën a sori nit ñaa ngi jóge ci yeneen réew yi ñëw am na ñoo xam France lañ jóge France nañu waa almaañ France nañu waa Norvège France nañu ak yeneen dëkk yoo xam ni ñu ngi ci yoon wi ñëw ci guddi gi ak ñoo xam bu xëyee buñ suba fage teer la ñuy ñëw ak yoon wi te bis bi suba ci samedi lay tàmbali ci huit heures ci suba bañ julli fajar ci dimanche ji te loolee ñuy def weesuwut njàngum alxuraan njàngum xasida yor seen kurus muy ci góor ñii muy ci soxna yi ba ci tuut tànk yi wutal nañ leen barab boo xam ne fa lañ leen di yóbbu di leen saytu di leen fa jàngalal sax seen diine kon bis bu maanaam yëg gi mooy yëg nañ ni diine moo fi nekk diine ju amul benn rax moo fi nekk. xëy na sax ci ci ci loolu laa bëgg ñëw tuuti rek. Hmm. Euh, ndax mel na ni comme ni nga ko waxee suba huit heures lay tàmbali. ba daanaka bis bi jeex. kon mel na ñu ngi fi xaar ay kuréel yu mag a mag eh, ci wàllum njàng xasida ci wàllum yëkkati gi hmm. eh, loolu xam naa buggoon na nga indi ñu tuuti rek xëy na lépp du ci xaj ndax eh, lii moom hmm. xëy na lancement la rek suba la mbir yi tàmbali waaye nga hmm. indi ñu tuuti rek ci li nga xam ne nar naa xew xew suba ci wàllum njàngum xasida waaw jërëjëf sëñ Modou ñu lay doole gërëm ci laaj boobu baax a baax a baax li fi nar a xew moom ni ma ko junjee sànq rek alxuraan ci nañu tàmbalee ak durus xasida ak yëkkati xasida ak bind xasida mbind mi sax ci la bokk ndax lépp lañ fiy def kuréel yi nag maanaam mm, am nañu dayo boo xam ne sii bu njëkk ay jamono ca gannaaw ay at da nga naan kuréel bu ndaw ak kuréel bu mag léegi nag amatut kuréel bu ndaw amatu fi ndax kuréel boo jàppoon ni kuréel sàngam moo ko gën a siiw kuréel boobu bu ñëwee bu jàngee da nga naan kii xanaa du ñoom kon mel na ni bu subaak jàmm yàlla suñu borom bàyyi ñu fekkee te tal ku fi ñëw fii da gis loo xam ni wuutewul ak la nga gis ca Touba Mbakke amul genn wuute la ñuy wuute daal mooy Touba boo geesoo seen seen seen jumaa ji dafay fii xëy boo geesoo doo seen jumaa ji ci saayir waaye bu dul loolu ña nekk ca Touba ñoo ne fii ñu fii ñoo nekk Touba kuréel yi nag deme nañ noo xam ni. du rek kuréelu Italie ñoom ñoo fi ñëw di jàng déedéet kuréelu Belgique daan ñëw naka jekk kuréelu France day ñëw almaañ noonu ba ci Scandinavie bi sax seen kuréel day ñëw nga xam ni dañ koo bokk ak ñoom ngir xam ni liggéey Sëriñ tubaale la taalib yëpp ñoo ko bokk Sëriñ Tuubaa ab jant la kenn mënu cee xatal kenn kon lépp lu ci waay bëgg a jëriñoo boo ko jéemee rek sunu borom mën na la dimbali nga jëriñoo ko. kon daal suba ci ci gàttal ku fi ñëw fii dañ lay ñaan rek nga amuk teewlu amuk dal te xam ni lépp loo fi bëgg a gis ci njàngum xasida ci yar ak teggin ak ak jàng alxuraanu karim ak jaamu yàlla goo xam ni lot nga ci dafa ko feneen ci jotaay yu yàgge nii ak pas-pas bu matane lu dul fii Sénégal ga ne sax li ngay mën a def fii ci ak dal ci ak teewal ak temps bu yàgg Sénégal mënoo ko faa am di ko def fenn kon loolu sant yàlla la ci nun bi nga xamee ne Serigne tubaa xéer na ci boppam ci dogal sunu boroom ñu ñëw fii di ko fi liggéeyal di gën a feeñal ay mbiram ndax Serigne Touba mbiram mënut a ñàkk feeñ. kon xam naa ne ci gàttal rek bu fekkee ne laaj bi lool la woon loolu ci mën a tënk la nag ku fi ñëw da ci xam lu wér ku seetaan rajo sociaux yi nga xam ne dañuy lënkaloo ak loo xam ni danga nga naan séewa fekke woon ko waaye doo lu bari ki fi nekk ndax lépp lu fi xew da ko gis kon ñu ngi tub baax a baax ci xay na eh, ñàkk fasaa gi ak ñàkk maîtrise xëy na laaj li ñu laaj. Mm. waaw barkallah Baye Sam jërëjëf ñu ngi lay sant ci kàddu yooyu xam naa ni jotaay bi du yàggul waaye fi ñuy tënkee tuuti rek eh, ak baay Mbacke ndax mel na ni sëñ bi ba mu bind xasida yi tubaab daf bi daf ne du ko fi amee waaye ñëw nañ ba ci dëkk tubaab bi. ñi fi jàng xasida yi xam naa loolu lañ joxe jox Baye Mbacke Mbodj nga tëjee foofu rek nga indi ci njàngat. waaw loolu de moom dañ ciy sant yàlla bu baax a baax bi ko suñu boroom jaaralee ci fii ba tey ni ko sëñ Sam waxee rek ñuy woote guddi xasida la tuddoon ñu dem a dem ba xajatul ci guddi ñu dem ci bis di ko jàppal bis. wante dafa mel ne tey laaj bi fii nga ma ko a ajjuma la te nit ñaa ngi ci barab bi kon mi ngi mel ne mi ngi génn bis loolu nag mooy wooteb sëriñ tuubaa la li sëriñ Sam ci ne sëriñ tuubaa jant la jant bi dafa jot mu fenk tiim ñépp te lii tamit daf ko bindoon ne dinaa ñëw ba ci seen dëkk yi ci seen suuf si ndax suuf si sax suufu suñ borom la mais da leen a joxor bi woon ne leen dinaa fa ñëw di ko fa yëkkati yëkkati gi nag tey ñun waa Italie dañ ci war a sant ndax sant gi mooy dañ ko fi indaale biñ ko fi indaalee tamit di ko riim ndànk ci suuf ba waxtu wa jot sëriñ bi génneel ko boppam ba tey mu wër àddina sépp bisu xasida ba ca Sénégal ga nga xam ne nii fa lañ sosoo dëkk par dëkk nga koy woote Europe gii ñu nekk tamit dëkk par dëkk ñu ngi koy woote tey le 2 novembre la incha allah suba wante le 16 novembre incha allah la ñu war a dem Espagne ci seen bisu xasida te ñaari ay bis ñu génn sëriñ Sam mii di wax ak yéen ma nga woon ci bésu Norvège te noonu rek lay toppante ci ni nga xam ne nii noonu la ñuy yaatale sëriñ bi Serigne bi nag. du waa Italie ñoo ko xataloon wante waa France ko xataloon jël si woon ko ca ca cosaanam wante waa France ñoo ñoom ñooy ànd bis bi suba te ñoo ñoom ñoo ko àndoon ca weer yee ñu génn ca Paris ga nga xam ne nii mooy dëkk bañ gën a fonk ñu fanaane faa def bisu xasida kon loolu dafay mel ne waxtu wu jot rek ak li bi war a génne lii nag waxtu wa dafa jot. sëriñ bi génne ko jaarale ko ci itaali mu dem a dem ba law ci àddina sépp te noonu nag la murit di toxoo ci Italie wala France wala feneen di dem ci yeneen réew te buñ fa demee tamit liñ doon nàmp rek lañ fay yóbbu muy dund xasida kon ñu ngi di euh, soññ xale yi ci ñu xam ne sëriñ bi de daf noo digaloon ne yéen a ngi ci réew moo xam ne day ah da ngeen faa ñëw di wuti wante la ngeen fa wuti la fa yóbbu moo ko gën fuuf liñ fi indi nag la ngeen fay wuti da ngeen fa yóbbaale ko gën liñ fi indaale nag mooy diine ak dundal sëriñ bi kon loolu kenn ku nekk ci ñun mat na ci bàyyi xel bu baax a baax bala ñuy tëj kàddu yet danañu sant organe de presse yi nga xamante ne nii ñoo ko ànd muy nii plateau bii ñu def te bu subaa incha allah tamit noonu la plateau yi di continuer ci borom xam-xam yi nga xam ne nii dañoo nekk ci kuréelu xasida yi te di jàngale ci daara yi di tëralal ci daara yi di jàngale alxuraan ak tout tànk yi nga xamante ne nii ñoo nekk ak ñoom kon plateau yi tamit lii ab tàmbali la rek di wane ne guddi gi suba la bis bi suba la wante lii dañ ko ko ubbee rek wante bu subaa lay gën a yaatu ndax borom xam-xam yi. ak ñi nga xam ne nii géeju nañ ci xam-xam yi daan ko jàngale nii lañ ciy defe ay plateau di ko wisaare ci àddina sépp kon daal ñi ngi wàcce kàddu yi foofu di sant ñëpp di gërëm ñëpp tey ñaan yàlla nañ ci yàlla yóbboog jàmm te lépp loo xamante ne nii def nañ ko ci yàlla nañ tombe ak euh, bëgg-bëggu sëriñ bi yàlla nañu sëriñ bi fay fay ñëpp ci barke promontoire barke xasida yi jërëjëf Baye Mbacke Mbodj comme ni mu ko junjee euh, noonu lañ ko fas yéene doxalee bu subaa yéen ñi nga xam yéenay seetaan à travers Proca TV wala Touba Monde bi ak feneen chaîne bu mu doon suba incha allah rabi danañ dundal bis bi mel ni ñi nga xam ni yéene woon ci ci ci bis bi kuréel yi jàng danañ leen ko faram-fàccal waxtaankat yi nga xam dinañ fas yéene waxtaan danañ ko faram-fàccal indil leen ko maam daal lépp lu jëm ci bisu xasida bu soobee yàlla dara du leen ci raw kon ñu ngi leen wax ngeen gën di wéy di abonné chaîne yi ngir gën di mën di am vidéo yi ñu ngi gërëm Baye Mbacke Mbodj bu baax a baax nga xam ne àndal ci jotaay bi. ak Baye Sam Diop nga xam ne moo jiite liggéey xasida gi di leen jix di dox daje suba bu soobee yàlla asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu. liggéey sëriñ bi digg ba borom digg bu yonent yi mooy xasida yi ci xasida yi rek la mën a xam sëriñ bi ñoom ñu fekk ne ne nekk ci xasida yi xaas la am xaas la am bu wér a wér a wér